mu defee ni mat na tutu dem ma dem mais pour te dire que ni li lay wan ni xale bi dafa joxe ci daf ma wër pendant huit mois ba tëstanu dàll yi di jeex kon da yàgg na daf ma dégg may wax ak yow ci émission gëmewu ko buntu rajo la taxaw daf la làqatu ndax xam na ni xam nga oh. muy ku baax di sama jigéen <laughs> kenn du moom tutu aan waaye man li ma ci jaaxal mooy koo bëgg danga koy miin wala dara waaye moom de un jour d'anima dama laa kër laa doon footballé waaye dañ laa ragaloon sax a xool eh, moom mi ma ma wax. tarkal la <laughs> xam nga lu waraloon loolu. Eh. tuttu aan macha allah laf cat kii yàlla na ko yàlla lafal cat. Eh. barki Seydina Limaamul Mahdiw bi ma gëm. bu am ci ay ndëndëm. non. bu soxla woon miis. mës nga ma wax loolu daf koy am. mos nga wax loolu bu ma ree sàkkere yàlla bi daf may jooyloo tey dañoo nekk ci Saint-Valentin tutu ba ree yi voilà tutu an macha allah elle est belle charmante je le à haute voix macha allah euh, xale bu baax la tamit ndaxte jox na ku ne cëram nag euh, balaa ma koo miin damay dem nit ñi di wax ci moom ci sama teewaay ñuy wax ci moom ay qualité yoo xam ni booba sax xawma ko xam nga te loolu ku baax rek lañ ko mën a waxal ndax jamono ji nit ñi kenn joxu leen lekk kenn joxu leen naan ku ci nekk yaa moom sa bopp uh-huh. fii kenn neexalul kenn bakitoo mii tutu aan mii buñ ma bàyyee it man damay jël sama yoon ma jël ñu jël seen yoon yaa ngi dégg <laughs> waaye dafa rafet nga xam ci nit lu baax nga wax ko ñii ay gor lañu mm. barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi Euh, yal na yàlla gën a boole leen. kenn rafetal ànd bi kenn gënu euh, yéen ñaar ñëpp nag gannaaw bàyyi kaña lañu yal na leen yàlla boole ci nit ñi na leen yàlla boole ci nit ñi. ñu mel ne man mbaa ñu mel ne taala mbaa ñu mel ne Pape Silla yal na leen ko yàlla def te tey ji El Hadj Wade mere naa ko ci bés bi parce que euh, daf ma manqué cër ci bés bi mm. parce que El waruma wax ne. Pakito woo ma ne ma dangay ñëw. Hmm. may ñëw El dafa waroon a préparer sama terrain. Hmm. mais ma ñëw muy indi ñaari janax ñu may séq <laughs> célibataire du ma séq c'est pas normal nit ku nekk nañ ko jox gëddëm. nañu indi ay marié ñu séq ma ñoo xam ne man ak ñoo ma tolloo grade. mais yàlla baax benn benn studio. quatre célibataires benn marié c'est c'est dangereux euh, di nuyu nag équipe bu personnel u Thiès TV di ñaan bés bi yàlla nañ ko yàgg feete ay at yu bëree bëri. Ah. Euh, Pakito. waaw Tutu An. Hmm. Euh, gis nga ñii. Ah. ñoom eh, kii nii. Pape Sylla ñoom El Hadj dañoo def loo xam ni kenn mësu ko def ci Thiès kaay. Hmm. tey kenn du wax Walfadjri kenn du wax Best FM kenn du wax Corkat dañu naan Thiès TV. te équipe yooyu yëpp ñu ngi fi. ak a dégg ñoom ñoo ko fi def. kenn defu ko fi. mu nekk nag loo xam ni euh, euh, euh, affaire professionnelle la. Mm-hmm. ndax loolu bopp la. bopp la ndax tey jii mënoon nga ni non du ma dugalee Best FM dugal lii dugal lii wala lii mën na am wala naa am mm-hmm. ak seen façon bi ñu leen yoree. wallaay ñii yal na seen jàmm yàgg. wallaay bés bi balaa moo ñëwaat yal na fekk ma takk ñetteel. ci barke yonent bi yàlla mën no amiin nekkuma deret. ndeysaan ah. <laughs> ñaar lan looy war nga ne ñetteel wala ñaar. man yi bés bi balaa ñëw yàlla ma yàlla bàyyeeg soxna yi. Ah. waaw allahumma waaw bàyyi ma soxna yi. non xamul tax ku nekk direct da ngeen koy fàttali ko mu ngi direct. du ma may ma wax de. man pour man maa ngi ginnaaw caméra ah di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp. dama bàyyi ah, Fatou les leaders de la nouvelle génération mon ami mon frère Lamine Régis kontaan ci yow. aca booy jox ko antenne bi gaaw maa ngi lay bëggee bu baax a baax ciao ciao bye bye love you all ayca kontaan ci ñëpp waaye jaajëf aca mu ngi doon moom itam eh, eh, Pape Seydi Babi sama mag ji moom itam eh, keroog Fatou Touré dafa ñëw ne ko uh-huh. muy sama yaay dafa ñëw ba sama anniversaire Papis dafa ñëw mu ne ko ci kii pakito bi maa la ko jox lu muy def yow la ba ma ko nee damaa bëgg keroog ñu waxtaan ma ne ko daa am lu ma bëgg a def uh-huh. mu ne ma boo ci waxtaan ak Papis sa pare nga doog a ñëw tey mu ne ma bu doon boo doon ñaani soxna boo ñëwee wax ko sa papa sa papa du du dem du yabal kenn mu dem papis la yabal mu dem kon gis nga cër bi mu am ci loo xamante liggéey moo la yàlla yaayam di bari démb laa yow yendu kër raqam mhm. moom te moom xamu ko donc mu nekk lu am solo loolu donc c'est donc euh, mu ngi noonu euh, euh, donc plateau bi day gën a wéyal Talla yow tamit damay dugal Edwey ma dugal Edwey ah wala da ngay tàggatoo waaye yow fu mu toll nii amoo temps da nga xaat <laughs> li xale naan da nga <laughs> ah, war a bégal réew mi <laughs> suba da nga war a askan bi ci rajo bi moo tax da nga xaar temps. <laughs> Euh, waaw euh, Alaaji maa ngi lay kontaane waat bu baax euh, di profito di remercier équipe bu technique bu télévision TV rawatina personnel bi nga xamante ni bi ñoo ci kër également di leen féliciter ci réussite bu mag bi nga amal ngeen ko plateau spécial bu Saint-Valentin. vraiment mention spéciale à vous. yow Doudou Anne Fatima les deux Fatima au carré. Pape ak Lamine Régie Seydou équipe bi yëpp mais di nuyu aussi notre PDG El Hadj Malick Wade mhm. di remercier Papis mi fi jógee Légui, moom kenn la ci ñun moom tamit tabax fakal la mais di remercier PDG El Hadj Malick Wade ñoom Mbaye Papa ji kullu ku ne ci télévision bi ñu ngi lay remercier mhm. di bég ci yéen bu baax baax di jox rendez-vous ci yeneen i plateau mais di remercier également seeni ay partenaires partenaire u télévision bi nga mhm. xamante ni ñooy gunge tey ci jotaay bi ndax dañuy wax naan peccum liir bu neexee yaay jaatee ca wagg ya kii ñu gunge muy partenaires yi ñu ngi leen di remercier bu baax baax di woo annonceurs yi mujjee wuy si programme télévision bi ngir nag lépp looy jaay da ngay xool fa nga koy jaayee fa mu gën a mën a jare ay ci rendez-vous bi très bientôt lay doon merci beaucoup ñu ngi souhaité ñëpp bonne fête de Saint-Valentin yàlla ay seen jàmm yaa bonne fête de Saint-Valentin à toi aussi Talla boo demee nuyu ma soxna si waaw daa ko dégg sama soppe bi boobu nuyu ko <laughs> waaw yëg naa kado bi yëg naa kado bi dana la woo yëg naa kado bi gis naa kado bi ac yàlla jàmm yàgga ah. ah donc c'est important mu ngi noonu bu ko defee nag am na benn artiste boo xamante ne mu ngi ñëw waaw donc mu ngi noonu di ñëw moom itam ah, je pense que doomu Thiès la tutu <laughs> ah, muy ki nga xamante ne moom mooy suñu waaj

waaleykum salaam. mon frère. di Fatou Diouf. l'international ñu tàgg commencé et puis les autres mu ngi noonu. booy sañse nga de. xanaa <laughs> da ngeen booy kii daal tey bi def ko dañ ko dund ci at mi. dégg yow la ñuy jàppale jàkkaard xool bi tourné maa ngi nuyu mbokk Thiès kaay yëpp. ko defee nga mën a mën a jël kanam gi maa ngi nuyu mbokku Thiès kaay di nuyu ñuy seetaan ñëpp à travers la Thiès à travers l'international di nuyu sama waa koñ seulement waa CS di leen wax nii waaw di souhaiter tamit ñëpp ah happy Valentine's Day uh-huh. voilà. mu ngi noonu nag happy Valentine's Day tey mu nekk lu am solo euh, je pense que da nga génn benn ñu gis benn cover bu am solo ba am def nga ko benn ay morceau du benn du ñaar ñu gis ci sa ay morceau yi ñu gis benn clip bu bees bi nga xam génne nga ko keroog dañ ci dañu am lu lu ñu bett lool parce que Edway tam daanaan la xam nañu ko. xam na li mu doon ak capacité yi ne ci moom uh-huh. waaye dañu gisaat lu beneen facette ci moom mu dajale ay wëy seppi ko def ko ku ci ne cabaxal ko ci benn mbooba mel ni galgal mel ni njambaan ba mu defar doy waar <laughs> yee dëgg la xam nga rek yow Pakito yow yàgg nga ñoo xam ñun ci liggéey lañ dëkk dëgg la yàgg nga ñoo xam moom dañuy teete di jàng rek yaa ma gën a xam mm-hmm. ñu ngi si ginnaaw gaay dëgg la ins bi nii ma lancé waale message bi ñu ngi ci benn label de production ci benn label de production ñu ngi ah, taf taf ñu fa signé SP nii ñu ngi fay waajal tamit projet bu mag incha allah di wax gars yi tamit ñu xaar ko bu baax a baax a baax baax. voilà. waaw mhm. ñi ngi job dal ñi ngi liggéey. ndeysaan ñi ngi liggéey macha allah. ati ñu ngi job ñi ngi liggéey c'est important ati Lamine Régie euh, si c'est bon bu dé pare na fofu Lamine mhm. nga dal di ñuy euh, fas rek jox li nga xamanté moom mooy morceau bi ñu mën ko dund ensemble bégal ci Fatima au carré euh, bégal ci sama jumelle tutu Anne ci Saint-Valentin yi souhaité ci passe ci la ak madame. di leen souhaité waaw Ouma Fall di leen souhaité joyeux ñom tam bonne fête de Saint-Valentin vous yéen tam di leen ñaanal baax a baax jàmm Lamine Régie si c'est bon ati ñu dem سيرو بيت لي لي لي لي لي am sa waay mu bëgg la lool yow de ko rubi naax nay dundal xol am sa paradise mu fonkoon la di ko rubi ndax day dundal xol waaw waaw fekk ku mu toog ngalal sa basang ne ko jàkk di ko xool di ko sa ñaawaay yëg di neex baa sangu ba set sonlu ba jekk jàkkaarloo ak moom ne ko bébé yaay raay del foo ak moom ba mel ni xale di ko cokkaas day dundal mbëggeel yenn say nga jooy di jooy jooy ñoo mu ni la nan la nga ne ko bébé dama laa noon sëy bi la bokk jigéen de jonge bul taay di ruube da ko sañ a def koon bub ay jawaay ni waay dëggal sang la de ko di bégal lu mu wax nga dëggal waaye de ko ruube ba mu bëri doole yow est-ce que nga ruube year fala de rube Khalidi man nga fi ci rube Year del fala de rube Wow wow su ma lay xool damay kontaan dee ma madilarewa beibe fone kujigiwetna wax ma fone ma fekk si la ku ma si man man xam nga ni yow dama la dama la dama la dama la bëgg yu famina ku mel ni yow ma baax man ku mel man

dama ni sakkal sa rëb wëndeel ci sa bopp sa yaay a liggéey lii a bi ndey ci la bi mere na mere sa yaay sa yaay a liggéey lii Eduwet Eduwet jënd na Sénégal fépp lay tabax Edu yaa ngi jaw sa xiir ñi la bëgg ak ñi la bañ ñëpp ngay jaw sa xiir yi ndox mar naa noo naan xale bi yëngal jamono te xew sa xew a xew bañ bañ nangu هللويا وياه لا من أي ماي بيز تاميت دخلي ما شاء الله آه آه وامو الفاطمة آه دكتور أجي كنوي الفاطمة شيري لا متساو فوفنخ أيوة What did samaaduna yaa man yaay booy ah, ah maa ngi lay ñaanal ni ay yaay buuro buuro daal yaay Fatimata Cheri Lamin la yooy tey laa lay woyal daale wuy daale wuy daale daale Teylalıyım dalim dégg naa ni nga woy léegi euh, c'est important yow itam dama la ciy déggee ndax xam naa ni da nga di ndaanaan comme dañuy toll ci waxtu woo xamante ni euh, kenn euh, dootul yàgg ci mbedd mi ndax ku feu bi bi jàkkaarloog ci bi c'est important et puis donc morceau baa ngi noonu génn nekk lu neex ñu gis nga ànd ceeg Diagne Faye muy lu am solo lool lan ngay wax Thiès waaye ci roube bi waaw den wax ñun dëgg doomi Thiès dëkk Thiès màggee Thiès yaloo Thiès mm-hmm. amuñu lu Thiès kaay dina wax ni son ngi noonu mm-hmm. ku ko bëgg a seetaan da ngay dem suñu chaîne YouTube si une fois tu tapes Edways a Boy nga gis clip bi ñu ngi ci plateforme yëpp ñu ngi Instagram ñu ngi Facebook ku bëgg am suñuy information ku bëgg am suñuy actualité nga dem tapé Edways a Boy sur toutes les plateformes allah. d'accord am na solo donc mu ngi noonu merci beaucoup Edways. ok merci acca moom itam tarkalla saba xaali xëy na ngi noonu. acca bu defee Lamine ñu ngi ci Saint-Valentin. alors euh, saint Euh, je viens de recevoir benn message bu neex boo xamante ni. Ah. ku ma ko envoyé du leen ko wax. Ah. ki ma ko envoyé du leen ko wax. ba man doo ma ko dee. non du ma leen ko dee. ba man doo ma ko dee. cadeau bi laa jot. Ah. alo li may njëkk a maye mooy saag bi Fatima la wax ci saag bi.

ñoom itam. ayca ba tey Fatima. loolu daf ñuy neex. ci Pakito parce que mhm. nag tey Saint-Valentin la ñu wax la fête des amoureux te mbëggeel dafa neex ci xol nee naa la mbëggeel yaay ak baay ndeysaan yaay mbëggeelu yaay ak doom. baay ak doom mag ak rek waaye nag mbëggeel ba ca dàkk mooy ñaar ñu bëggante. te comme l'amour doit être réciproque fi nga génn tey ci rouge noir. Mhm. macha allah baaxati na yow nga ñëw jàppale ñu Fatima jàppale ñu ci jàpp ne tey dañu ko rax dañu ko rax tey euh, tey tey da ngaa dem États-Unis tey da dem États-Unis mhm. euh, man ma dem Italie euh, tout an dem Paris non kii Paris la moom ma dem Paris allo allo salaamaaleykum aleykum salaam ku baax ziar naa la ah delloo ziar bu baax naka tey ku baax ki waaw sant yàlla bu wér est que xam nga tey duñ la duñ la téye ci ci ligne bi tey yow bëggante nga ku baax ah bëggante nga Wow, bagaimana sana ya. Tiga bagaimana kemana turun? Coba bagian. Wow. Wow. Ah? Halo. Oh, ah, mau mau naik nono? Halo. Halo, wi. Mari semua teman teman turun? Wow. Wow. Nomor tujuh. Mam jara, mam jara fal. Fan gen, fan Halo. Fan gen kamante yin nyar. Fan gen Wow halo halo oui. Patito. Oui. Ça va? ah dañ ko buux. dañ ko buux. tey émission bi neex na de. mais yéen a ko moom yéen ko moom. man la maam Awa Ndiaye. maam Awa. maam Awa Ndiaye. maam Awa Ndiaye. depuis mel na Fall. mel na ngay Awa. maam Awa. man iPhone bi laa bëgg de. ci iPhone bi nga bëgg a bokk. waaw. na après iPhone bi après la sa tur dugg na ci biir. ah. ma ne ci sa tur sa na ci dégguma. ma ne sa tur dugg na ci biir sa tur maam Awa Ndiaye. waaw. d' accord sa tur dugg na ci tirage bi. waaw ok maa ngi leen xaar. ok yàlla yàlla yàlla yàlla na nga def ni nga gañe rek yàlla baax na. yàlla bari na si jël ay ca kon ñu noonu. ba tey Aja Lamine Ado ba tey ay ku ñëw mën nañu ko jël allo oui. waaw Dj. waaw. waaw li ngay def rafet na. mais yéen a ko moom yéen a ko moom ku baax. waaw gars yi kontaan nañ kontaan nañ vraiment. wallaay wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. waay bilaay bilaay naan na trop plateau bi aussi kontaan nañ ci. mbaa mbaa kontaan ngeen rek loolu la bëgg ngeen bëgg. waaw waaw kontaan bu baax a baax a baax vraiment. Thiès uh-huh. TV moom ca kaw ca kanam rek. donc am na solo loolu donc yow tey ah, ah, tu es marié wala célibataire nga. non célibataire la célibataire bi. mais mais am nga koo nekkal. waaw bu baax. nu mu tudd. Koumba Ndiaye Koumba Ndiaye. yow foo ne. man som laa dëgg nag som. d' accord euh, euh, moom Coumba euh, Ndiakh d' abord. waaw moom bu ñu ko doon jox saak bi looy ci wax. waaw dina man neex trop trop trop. dina la neex lool. waaw trop <laughs> gis naa bi moo ko joxee saa bi jël iPhone bi. iPhone bi waaw. Euh, iPhone kan moo ko joxe sax Cheikh inter inter Apple shop. mais mais attends iPhone bi bu dee xam nga euh, information yi nga xam ne moom mooy inter Apple shop fi mu nekk ak yu am solo parce que euh, Lamine defal na publicité bi sànq. Ah. donc gis nañ xaw ma nag ba xam topp nga émission ba toppoo ko en tout cas émission affaire bi daw na xaw ah, na ñu xam. je pense que Thiès miin na ko. naa bu baax baax. fan la nekk. mi ngi nekk ville. inter apple shop waaw ville waaw. waaw waaw mi ngi nekk ville ah. waaw ci central. ci fan. ci ban côté. ci marché central bi noonu rek. ci central bi. <laughs> loolu yaatu na de waaw jë jënd naa fa sax ay airport. ah jënd nga fa airport. waaw ay protek yu weex. kon yow ah da ngaa jënd ngaa yor iPhone kon. waaw waaw iPhone laa yor mais instant dafa toj te iPhone 5 laa yor. ah 5 nga yor. waaw waaw waaw loolu yow faaw nga laal 6. waaw nga foog nga yéegal niveau bi. moom lan lan nga gis ni moom lay def foofu ak gérant bi euh, foofu noonu lu muy def foofu. dégg ma ñoom lan la ñuy def seen spécialité ci lan la. non ñoom dañuy jaay lu wàllum numérique quoi. Uh-huh. ay téléphone ordinateur. Uh-huh. iPhone. Uh-huh. lépp daal ay montre aussi boo ko buggee tamit am na fa. d' accord nañu fàttali tur bi ah, vraiment 100 pour cent d' accord sa nan la. man El Hadj laa tur nag moo nekk ci sa carte d' identité. waaw waaw. d' accord ah bonne chance bonne chance à vous tout cas. Ah. D'accord, Elage. Moi, je suis tourné Elage Wad. Allez, bonne chance à vous. Merci beaucoup. Acha, merci beaucoup, Lamine Bataille. Acha, dafa xat. Allô. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Pakito. Oui. Dellu naa la ziar. Man ta ñëw def ci am. Maa ngi lay ziar bu ngi delloo ziar bu baax a baax. Kii yaay bu waaw. Seen yaay la Hawa Kane man maa def émission Thiès du Pulaar. Ah, ndeysaan. Ah, Hawa Kane debbo énergal. ndeysaan ndeysaan suñu yaay booy kay maa ngi leen di ziar bu baax ah, ah, dama la naan bandiraɓe mi salmini noon waaw maa ngi kontaan ci yéen lool di leen bëgge uh-huh, di bëggee baax ci yow itam macha allah mi weltanima waaw mi salmini hono Elhaji Malick Wade macha allah uh-huh, uh-huh, eɗen ñaago allah yo allah hokku en wadde ɗum aneejo kewɗi eyi mhm. on weltanima yimɓe foof machallah mais il fallait kama tabaxal ci pulaar bi nag parce que xam nga bul jox kenn euh, ci ay fonko naa ko nag ah, fatima wax <laughs> ah, naa leen trop ñoo la raw ñoo la raw yow allah néewnu yal na yàlla nangu ñaan yépp kontaan nañ ci participation bi yaa booy a jaaraama merci beaucoup vraiment kontaan naa ci yéen ma ngi leen di ñaanal yàlla ca kaw ca kanam macha allah télé bi moom ca kaw ca kanam ndax ñun yéen rek la ñu am yéen la ñuy jóge mhm. ndax yéen a nekk xale yéen ay pousse télé bi macha allah yéen moom dañ leen di bëgge saa su nekk pakito xamal ni li ngay def moom wër na àdduna wërgal këpp macha allah kontaan nañ ci yéen lool yal na yàlla yokk xéwal yi ah. ya may leen aussi yéen it loo xam ne ni que bu allahuma amin allahuma amin ok nuyu naa leen ziar leen yaay boy, jaajëf jaajëf yaay yaay booy ok merci allo yaay allo allo allo waaw waaw yaay booy naam lii xam naa ne dama la koy may may nañ ko trousseau may naa la trousseau bi ànd naag pochette ah. ànd naag ñaari pochette xaw ma nag boo dem marché da ko ciy def rek ah Fatima waaw waaw bu ko defee mu ngi noonu yaay lii yaa ko moom yaay lii yaa ko moom maa ko moom yow yaa ko moom sa cadeau Saint-Valentin inshallah allah. mu ngi nii ci kër gi heure bu la neex mën nga jël Primark shop ñoo la ko may. ki la ko may Primark shop. d'accord. allo. allo oui iya, kontaan nañ bu baax. mu ngi noonu. teraanga yi mu ngi noonu. kuy nangu waaw teraanga àdduna bët. kuy kan mooy nangu lii. salaamaaleykum. waaleykum salaam nangu lal yaay. sëñ bi na ngeen def. ñu ngi ni sant yàlla. yéen ñu ngi sant bu wér alhamdulilah. maa ngi leen di nuyu di leen ziar. ñu ngi day ziar baax baax. ngi leen di nuyu bu baax. di nuyu am. bu baax. Pitu man la ab ah mbub sama mag def. lii ma soo copine boobu nga dendal lii ma introsé Fatima ndeysaan ndeysaan Fatima. salon bi dëgg la dëgg la. maa ngi leen di nuyu di leen ziar. wax bonne fête de Saint-Valentin. merci beaucoup merci beaucoup. di leen ñaanal bu baax seen télé bi jëm ca kanam. ndeysaan waaw. moo tax ma solo loolu itam yàlla na jàmmam yàgg. yàlla na ah. sa jàmm yàgg ab sa man mënat yi ma fiy gis sànq ba léegi yéene naa ko ab sa lool. Ah. lan yi may gis nii. mënat yi yu yu xonk yi. yu xonk yi yu xonk yi. jox ma benn jox ma benn ab sa. ku pare ah, ku pare la de. allo sama mag jooju. non non non te suuf yële yële yële. Eh, loolu laa ko yéene. Eh, lii da koy rey lii moo baax ci ab sa. bu at bële bu at bële bu at bële. Pakito boobu xale bu jigéen bu féroce nga koy may. non bii mu defar dem ak ñu def am ñaar daf yor ñaar ñaar yu lay allo ana daw na allo oui mi ngi noonu maa ngi lay dégg leen di ah, yow la Absa ah? uh-huh. waaw alors tey teraanga bi nga xamante ni defal nañ la ko ah, dañ lay jox ay lunettes de soleil yoo lunettes de soleil yoo xamante ni mu ngi nii ànd ak pochette am uh-huh. Primark shop ñoo la ko jox ah may ngeen lu ma bëgg mm. te dafa raar mu ngi dem dem barki dem lay door a yegg si jógee dëgg la lu ma bëgg ngeen ma may mu ngi ànd ak boitam mu ngi nii walaay dëgg la eh, dinaa ko jël mu ngi nii boitam baa ngi boo ñëwee di nga ko fekk boo ñëwee di sa carte d'identité c'est bon ayca ab sa waaw ayca ba su ab sa ngoog maa koy nangu moom itam ah? massage amul massage yi vingt une heures dañuy massé wu allo allo salaamaaleykum temps bi moo ñu xaw a xot aca ku baax si loo ne. allo. allo oui ku baax maa ngi lay ziar. waa sëñ bi na ngeen def. ñu ngi fi rek sant yàlla. ça va na a ngi si jàmm. waa ñu ngi si jàmm baax alhamdulilah. Euh, tur bi Mouhamed la. nga ko bu mu neex neex ba ngeen fàtte. bu mu neex neex ba ngeen fàtte ni 21h la ñuy tëddee. ayca <laughs> Aliou Mouhamed Xaaji Mouhamed. waaw na ngeen def maa ngi nuyu. ñu ngi ñu ngi lay fay bu baax a baax. Euh, Mouhamed ak euh, El Hadj Wade. Daara Daara Wade Ndiak Fara Wade Ndiak. Mhm. waaw di leen jaajëfal ci liggéey bi. ndeysaan ndeysaan am na solo lool lool lool lool macha allah. wallaahi wallaahi wallaahi. waaw depuis sànq maa ngi seetaan mais am na solo lool lool lool lool lool. ndeysaan ndeysaan fay wootee. dama duggoon pour ziyaara rek. da ngaa duggoon pour ziar. ziar leen rafetlu seen liggéey. ndeysaan kontaan nañ ci. macha allah wallaay ndeysaan kontaan nañ ci. macha allah yàlla na sa jàmm yàgg ah, moom tamit ñu ngi koy jaajëfal bu a baax jine ah, fashion moom itam may na fi jiin ak bodi yéen xale yi nga xamante ni daal kàll la jiin ak bodi jiin ak bodi allo ok allo salaamaaleykum allo di nga tàggatoo oui lay maa ngi dellu ziar bu baax ci baax ah? waa li nga seet tey tamit waa mais attends damay fo rek numéro deuxième bi la <laughs> allo. en tout cas en tout la nga ruub lu am moo fi des. waaw mais yow laa ko tuddee ku baax ki tur bi nan la ak fay woote en directeur from Cité Lamine. Cité Lamine ngay woote Cité Lamine Cité Lamine. waaw Cité Lamine am nga am nga yow am nga am nga soxna. am naa soxna waaw. nu mu tudd le seize le seize janvier bi bi passé la marié. eh yow kon sa soxna faaw nga mu jox ko cadeau. waaw instant yii kon moom Valentin sama Valentin la.

waaw ah, merci beaucoup merci beaucoup macha allah. donc bu la neex bu la neexee léegi léegi mën nga jël jël si ko. ah ban tur la li moom. fàttali ñu tur bi. waaw li moom kontaan rek kontaan trop macha allah. ndeysaan ndeysaan. waaw waaw waaw xam nga Thiès TV moom suñu télé. wallaay wallaay ndeysaan loolu rek am. wallaay. waaw toujours defante ñu def li moom lañ si kontaan trop trop. fàttali ñu tur bi wala ngeen gudd fan tamit ngeen yàgg fi loolu. allahumma amiin ku baax tur bi nan la allo. allo waaw waaw tur bi na la noo tudd. Cheikhouna Cheikhouna Lo. Cheikhouna Lo moo ne ci quarante bi. waaw Cheikhouna bu ñëwee rek après mu jël sac bi. Euh, pour madame moom itam ñu leen di uh-huh. souhaiter heureux ménage à vous. acca Lamine na keneen ñëw ñu jël keneen on avance ñu euh, des na ñaata mu lan moo des. waaw des na quatre des na quatre donc dañuy mayewaat quatre yi. donc ñu xool ah euh, Jili moom la dem ah ci Jili Fashion. ok nañ dem Jili Fashion Primark shop xaar ñaar moo des ci Primark. acca ku ñëw allo waa Fatick Lo. oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. nan la ku baax ki Gass Diop madame Sow. Gass Diop madame Sow. waaw. Euh, fooy woote Jaxaaw. Jaxaaw ngay woote gas waaw tutu waxal ak gas allo Gass. tutu. ba yaa ngi ci jàmm. waaw maa tey tey naka nga dundee Saint-Valentin bi. waaw xanaa bi rek ndax monsieur damaa sori. mais yàlla baax na. yàlla bari na si ay ci da ngaa bëggoon da ngaa bëggoon a bokk ci jeu bi. ma damaa bëggoon dugg nuyu leen rek di kontaan seen émission. waaye ñun tam dañ laa bëgg a neexal. jeex na des dañ laa bëgg a neexal Djily Fashion lañ lay laaj fan la nekk ci marché central. bon. Ah? <laughs> dama laa bëgg a may ji nag bët yi. ah ah. ah non sérieux nag xaw ma boobu moom marché. <laughs> ndeysaan. ay ci kon Paki mu ngi noonu nee na xamul jili fu mu nekk kon nag da doon woote rek moom itam di rafetlu émission bi ay ci ñu ngi lay kontaane bu baax a baax merci beaucoup ay ci ba tey euh, cinq minutes moo des kon nag Lamine bu euh, fekkee donc ba tey Fatima je pense que mu ngi noonu ñu ngi recevoir appel yi cinq minutes moo des euh, waxtu wi dañ koy chronométrer waaw waaw wow. ñu xool ñu def bi euh, ki nga xamante euh, euh, inter apple shop moom mi ngi seetaan actuellement ah, mu ngi suivre moom itam nee na ngi noonu amuñu morom nee ñun amuñu morom boo xamee sax ñun dañu am iPhone wallaay dëgg la ñun sax dañu am iPhone Fatima Fatima Fatima <laughs> Fatima ni instant bi dafa bëgg am iPhone bi mais mais pour le moment Fatima Inter Apple Shop xam nañ ni quatre lañu ci plateau bi. Mhm. donc dinañ def différence amul ben problème. Ah. yaakaar naa ni bii ñu fi may tay pour téléspectateurs yi la. ayca jële ko euh, allô allô allô ku baax allo waaw. tur bi nan la fay fooy wootee. la ummi. ummi fay wootee. caali. caali ngay wootee. waaw. Euh, marié nga wala célibataire. célibataire. ñaataat nga am. <laughs> 15 ans nga am kon waxal ak tutu tutu waxal ak waxal ak moom. dama lay laaj ci lu gaaw a gaaw Djily euh, Fashion fan la nekk allo Oumy. xamoo ko. <laughs> ay ci ko si xale yi xam ko Djily waaw mi eh, bi fi nekk tey 30 ah? la sama genre gi lay jot du jot Oumy. ah takkusaanu Thiès incha allah kon kon dañ koy raxas raxas takkusaanu Thiès bi donc c'est important mu des euh, euh, shirt bi ak benn verre ak ñaari yére yi donc euh, léegi dañu ñëw ci gorolo bi iPhone bi iPhone bi faw ñu maye ko ah. waaw iPhone faaw ñu maye ko parce que moom jili moom nee na ma inter Apple shop nee ñu ñun ñeent ñi fi nekk ñëpp at nañu am iPhone waaw nee na ñun ñeent Donc nous am iPhone message yaa ngi nii donc lu amul seede baaxul donc nee na <laughs> di iPhone donc inter Apple shop donc mu ngi noonu inter Apple shop donc euh, moom moo donc iPhone bi euh, dañu koy euh, maye donc mu nekk lu gaaw Fatima lay tàggatoo ñoo ñoo ñoo joxe iPhone bi <laughs> donc ñu jox ko rek ki ko ñu jox ko bonne chance bonne chance ki mujjee dugg rek <laughs> ñu tëjee ko émission bi xam naa chance am lay nekk di remercier téléspectateurs yi toogoon di ñu comme nga engagé lool waaye man it ma sori ci moom lool ay <laughs> ca Abdallah Ahmed Thiaw kooku sama collègue la ku baax ci man macha allah nekk fële teel ci it ITC Thiès di ko nuyu bu baax di ko souhaiter très bonne euh, joyeuse fête de Saint-Valentin génnee ci robe bi waaye nag bopp bi vraiment moo fi jaax sama doomu nday donc après Merci à vous tous aussi. Ndeysaan merci beaucoup et bonne fête de Saint-Valentin à toi. Ah merci merci elle est toute belle su ma Valentin sax mu mais comme damaa pat amul oh problème. allo. allo ku baax. waaw salaamaaleykum. waaw alaykoum. salaam ku baax ki man la Mamadou Camara Taaxi Mamadou. Mamadou Camara. Mamadou Tahikaw. Kaw. Mamadou Taaxi Mamadou Camara. ah Mamadou ci loo ne. waaw ça va alhamdulilah alhamdulilah Mamadou euh, tur euh, fan nga nekk taxi kaw. may ci kër Serigne Ngagne. d' accord. waaw Serigne d' accord accord lan nga bëggoon tey. foofu ah? neexul dara. neexul. Akito. oui. alo wi waaw nga ni ko. ñu tëggaat affaire bi sponsor yi. waaw sponsor yi. ñu tëggaat ko comme ça ñu mën ko bind. waaw dëgg la moo tax dañ leen ko fiy tegal waaw moo tax dañ moo tax dañ koy bàyyi dañ ko fi bàyyi léegi nag euh, pour pour mu pour leer euh, donc tey euh, Inter Shop dafa commencé sponsoring officiel Takusaanu Thiès mhm. à part de tey mhm. donc day commencé sponsor chaque chaque Takusaan Thiès chaque week-end dinañu maye téléphone donc loolu ñu bàyyi ko xel waaye bu tey moom dañ koy centré tey tey moom si siis tey lay dem <laughs> Fatima lay tàggatoo Khady Ndiaye Som waaw di di di élément ci kër gi journaliste. ah Khady naka mu. maa ngi nii rek nuyu naa la Pakito. waa rëbëgg nañ la baax a baax yow tam. maa ngi kontaan baax ci plateau bi. ndeysaan na toog ndeysaan ndeysaan. nuyu tuutu. tuutu an. sama fans boobu sama soppe boobu. wallaay ndeysaan ndeysaan. waaw nuyu ñoom nuyu ñaari Fatima yëpp. waa man iPhone bi laa bëgg de. ci iPhone bi Inter Apple Shop fu mu nekk. ah. fu mu nekk Inter Apple Shop fu mu nekk. fu mu nekk. waaw. Eh, nekkul marché amin ville la nekk de. d'accord ville waaw. Uh-huh. lu muy jaay. ah moom wàllum iPhone rek lu jëm ci marque iPhone rek moom lay jaay. Uh-huh. waaw waaw. d'accord. acca kon bonne chance yow itam. waaw merci. atia merci beaucoup maa ngi kontaan ci waa Thiès yëpp nag. atia amal jàmm rek yooyu itam waxtu bi dañoo xoj te 28 heures jot na atia bu ko defee ñëwal euh, bu ko defee Fatima euh, looy tàggatoo yow itam. waaw Aïcha kon noonu laay def rek Pakito di tàggatoo ak waa Thiès kay ak li ko wër rek mhm. euh, comme ñu ko waxee rek tey ñu ànd ak yéen ci seen fet bi nga xam mooy Saint-Valentin. Mhm. ma wax ci nag histoire bu doy waar ci wàllu mbëggeel waaye gis ngeen nag lu neex du doy ba tax na dinaa leen jox rendez-vous incha allah mardi. dinaa defaat ndax du ma ko bàyyi benn yoon. da nga koy raxas <laughs> je l'aime bien. mu ngi noonu <laughs> xanaa weer bi mat ba tax na rek ku ci mel ni euh, madame Touré. ay ca kooku mooy chérie Oma Touré euh, sama grande sœur bi soxna Jaara Touré. Euh, soxna Jaara Touré sax ndax soxna Jaara Sarr mais Touré léegi la sant. maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom tamit tey ci Saint Valentin yi la bokk. madame Ndiaye chérie Moon Ndiaye aussi ci Saint Valentin yi la bokk waaye sama jéegi ñoom ita ci Saint Valentin bi lañ bokk waaye tamit képp koo xamante ma koy jox jox ko sama grande sœur ne ko joxal ma ko Fatima te incha allah bëgg naa euh, saa su nekk ma koy habillé muy kan yaayukat yi kooku mooy ma maman Hadijatu euh, maa ngi koy béggee bu baax a baax foofu ca xombal ak sama maam ji waaye ba tax na rek nee naa leen waxtu bee ñu xoñ dafa nekk couvre-feu bi ñu dañ cee bokk ba tax na euh, dañoo bëgg a ñibbi suñu kër toog comme ñëpp daal di respecté règlement yi nga xamante ne moom lañ teg ci ñu say dàll say dàll waaw la fi génn sama dàll yi gis nga pakito xam nga daal di dañ koo oh. fat dal di ami ami aminta aminta Seck. aminta Seck waaw cousin wu fara bi bi nekk ci loxo bi lan la. waaw xanaa moom artiste la. <laughs> d'accord aminta Seck. Uh-huh. artiste la dafay fecc bale yenn saa di ngeen koy gis sax muy ànd ak waari di fecc ndeysaan mu ngi fële Ngor. rompé arrêt 35 moo ma jox lii. ne ma da nga war a doon bandi ndax ñun faramaare ni ay bandi lañ taarukal la waaw ne na ñoom sañse rek la def hmm. jox ma ci dàll yi hmm. waaye nag t-shirt bi ak mbaxana bi mami Badji sama grande sœur bi nekk foofu ca Dakar moom moo ma habillé jël beneen t-shirt jox ko ki nga xamante moom mooy tutu aan uh-huh. moom dafa bëgg tutu aan te yàlla rek tax waaw mu ngi noonu ay ca daal di joxaale t-shirt nag sama Saint Valentin ki nga xam mooy Lamine Rizi moom it am na uh, ah waaw ah, noo muñ noo muñ leen rek muñ leen fans yi ñooy ñooy doxalee noonu di ci man muñ leen rek ay ca mu ngi noonu rek ba tey rek di wax ci ay ñu fa njoxo bàyyi Samba sama yaay ja xam nga dama koo bëgg ndeysaan dama koo bëgg kooku xam naa damay bëgg sax di wax ci moom mm-hmm. bi day tooy ndax damay bëgg sax jooy ndax lu ma am bokk naa kook moom waaye moom it lu mu am bokk na kook man ay ca kon sama yaay gi dundal yow it macha allah je t'aime I love you merci Fatima Fatima dama ko bëgg ay ca moo xanaa kontaan bu baax a baax émission bi kontaan itam ci mbokk téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo safoo di seetaan la première chaîne thiessoise waaw suñu partenaires yi ñoom itam ku bu samedi la euh, samedi samedi Thiès bi incha ci la ñu euh, ñeent affaires yi des waaw donc incha ak euh, suñu partenaires yi nga xam dañu war a nekk sponsorisé émission bi samedi ak dimanche Primark Choc Jili Fashion ak waa Inter Elpel Choc ah ñoom itam ñu leen di béggee bu baax a baax ci iPhone mm-hmm. a wax dëgg yàlla ay ci kon euh, jaajëfal leen bu baax a baax a baax jaajëfal ki nga xamante ni mooy le réalisa réalisateur kooku di euh, chéri Ouma moom itam ñu ngi koy jaajëfal El Hadji Malick Wade chéri Mama Diop mu baax mi ak euh, ki nga xamante ni mooy le régisteur Lamine Pro Lamine Junior ak Lamine Pro ñu ngi leen di toute l'équipe l'infatigable Seydou ñu ngi lay béggee bu baax a baax a baax itam ah, di ah, béggee bu baax sama yaay ji Jóoba Jóob Amadou ah, di ko wax jàmm ci yow ak toute la famille Jóob maa ngi leen di kontaanee bu a baax di leen jox rek dig daje ba samedi incha allah ñu ñëwaat rek ci li gën a neex seen biir émission Takkusaanu Thiès uh-huh. di mon jumeau uh-huh. je t'aime beaucoup voilà moi aussi je t'aime beaucoup en na euh, euh, euh, ils étaient au nombre de trois hein. elle a El Hadj Kone ak Khady Ndiaye uh-huh. ak dëkk Medina Fall donc Cheikh Inter Apple Shop euh, euh, mooy bind donc ñu xool donc ñoom ñett ñëpp bala ñoo joxe loolu rek Bafou Mbengue moom itam ak waa Bafou collection ñi ngi seetaan ñi ngi leen di kontaane bu baax a baax a mm. baax moom itam euh, jàpp nañu li nga xamante ni mooy télé bi kenn du moom de kenn du moom mm. ci réew mi ba tax na rek Pape Sylla nee na ak baax ba yeggale ko nag ayca kooku mooy Chéri Nogay bàyyi Baba ak Fatou ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax ak équipe bu Bafou collection bi yépp ñu ngi leen di kontaane aca Serigne Malick nee na mu ngi lay

El donc moom moo gën a moom moo gën a maîtriser ah. donc mi ngi noonu Cheikh Inter Shop mi ngi noonu turam ma ngi noonu El ah, donc ah, mi ngi noonu donc Cheikh merci beaucoup à mm-hmm. moo tax gis nga liggéey dafa am solo parce que ñoom dañuy toog di sitaan di bàyyi xel donc man uh-huh. tur ñett tur sax xaw ma Khadija jàpp xam naa ne El am uh-huh. euh, femme bi dëkk Medina Fall xaw ma donc mi ngi noonu ah nga tarkal nee naa leen dëkk bi nag sister Rema la def nii <laughs>

Wow, donc mu ngi ah, donc après donc la euh, Fatima waaw mu Fatima mu alors Cheikh Inter Apple Shop donc gis nga ko ñu pas de cela ça sax mu ngi fi euh, <laughs> alors Régie aussi ah, Inter Apple Shop donc Inter Apple Shop la ñu ci li nga Inter Apple Shop nag comme marché central euh, ci ville bi faut amener nous, à am dañuy airport comme Nico ko euh, bi aussi di jaay ay euh, lepp lo xamante moy ay écran ay ay euh, téléphone ay télé donc yooyu yëpp ay radio dañ koy jay donc mu nek lu am solo lol donc c'est important donc El Hadj Fodé moom tëdd micro bien ah. donc c'est important donc inter Apple Shop mu ngi alors benen Primark Shop asu gis nga mo jaar fi Primark Shop yakarna né partenaire la ci kër gi Astou borom Primark Shop donc mom tamit des partenaires ci kër gi la maison don len may sen émission bu am solo bi benen bi nak Jili Fashion Jili Fashion aussi mi nga xamante ku mu solo rek baaxul moom tamit nag mi ñuy ah, bégal dañuy solal lu am solo loolu alors li ci des nag gis nañu ko euh, sac bi am na ku ko gagné euh, euh, trousseau bi am na ku gagné t-shirt bi pour góor la góor la ak body ak tubay bi nga xamante ni pour jigéen la donc ñeent yooyu moo des incha allah tàkku sànnu ca daañu ko raxas daañu ko yeggali waaw samedi incha allah ñu daal di yàggali ko maye cadeau yi ngeen bay ko xel ça a été un plaisir jërë ngeen jëfati merci beaucoup à tout le monde alors ba benen yoon ci benen plateau spécial Saint-Valentin le woon bonne